def lu leen neex di wane ak ak boccatiku fokk ñu teg leen ci yoon loolu nag jàpp naa ni wax dëgg yàlla lii euh, kooku nga xam ni euh, moom mooy Moustapha Diakhaté di kilifa parce que moom at yi mu am man jàpp naa ne waroon naa rus ay doomam ak jaar-jaaram ak ay sëtam ak fi mu jaar yëpp di taxaw di saaga même bu amee lu ko neexul aw askan kenn ko saaga le peuple est souverain moom mu neex ko mun xare ko li askan yu bëgg loolu mooy dox ci réew mi parce que noonu la réew di doxee nga ànd ci ak nga ñàkk ci ànd. américain yi tànn nañ Trump te kenn muy. mais voilà euh, Donald Trump. boo laajee américain yi bëri dañ naan la mais ñun Donald Trump waruñoo jiite mais moo leen di jiite parce que li ëpp ci askanu États-Unis moom lañ àndal te gis nga démocratie noonu la la majorité moom mooy gouverner ñun maanaam même bu dee li Sénégalais yi voté neexu leen maanaam li Sénégalais yi fal le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye bu dee neexul Moustapha Diakhaté ak ñim àndal. Le premier ministre Ousmane Sonko président de la dem campagne sénégalais dem voter massivement Falco même ne la volonté populaire. que la sénégalais Et ce que li sénégalais yi C'est ci démocratie moom Moustapha Diakhaté loolu moy wax loolu mooy ñàkk a wormal nit sénégalais a sénégalais parce que démocrate da accepter. ñi nga xam ne ñoom ñoo am sañ-sañ. Mhm. ñu tànn kenn bëgg a tànn Moustapha. buñ la tànnee nga xam ni yow am nga chance tànn nañ la buñ la tànn nga xam tànn na mais nag gis nga Moustapha Diakhaté. Mhm. Euh, ginnaaw bi ma waxee ni man. képp kuy taxaw di saaga premier ministre ku mu mën a doon dama jàpp ne dina war a yar. yar la nag Moussa euh, euh, Pamata nag man comprendre naa la parce que boo nee dañ cee toftale sa lool mooy li ñu fi fekk dañ ko bëgg a changer incha allah mais juge comme kenn contrôlé wu leen. xam nga la justice actuellement Moussa euh, euh, Ousmane Sonko du leen woo parce que bu leen doon woo kon suba ngoon duñ ko saaga. Bassirou Diomaye Faye président de la République du leen woo. u leen jaar leen wii yoon wala jaar leen wee yoon mais juge kon ñoom lañ doon def ca texte yan ko doon sukkandiku lañ ko ne di ko ci sukkandiku di ko def maintenant man li ma gëm mooy comme woote nañ ay lël pour waxtaane xar kanamu justice bi ak tëralinu pour soppi ko hmm. naa ne yu bëri dana dañ insha allah maintenant nag li am solo aussi moy que mëno nek fi di saaga nit ñi bo toggé ñu juge la en flagrant délit en 15 jours bay war la nga nek askan wi buñ la saaga won da nga xamni lool du neex tay ji bu nit ñewon tifar lay saaga yow ak sax njabot wax la lu leen neex ñu ni non flagrant délit la garaaw nañ ko wo 15 jours bu ko défé ñu bay ko mu ñibi loolu luñ wara a soppi la problème sans ñu dugg ci logique bi ngay wax di ci di di dolli ci ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay mais ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay xoti warma ma bi sallallahu alaihi wasallam kum xoti sa warma war nga mën xamni kon wàcc na parce que mom da naka dang ci wara bekk da da naka parce que ki nga xamni moy gën gi mbindeef nga xam ñun ñepp bes pench mom lañ yaakar mu plaidel ñu ci yalla subhanahu wa taala ginnaw biñu jëfé suñu jëf ju baax mhm. nga xam ñun ñepp mom lañ yaakar yalla subhanahu wa taala ni moy gën gi mbindeef mom la mustafa Diakhaté mi taxaw ni mom gënuko alors que gën gi ab julit li ngay jëkkal a nangu mooy yonent bi salaahu mooy gën gi mbindeef mooy ki yàlla subhaanahu wa taala tànn wax ne moo gën ci yéen. loo waxul gënu ko de daf ne ay waajuram gënul ay waajuram. waaw mais mooy benn bu nee ay waajuram euh, gënul ay waajuram kay mooy gënu ko rek. parce que ki xam ne moom wax dëgg yàlla ci tànnee fam yamul sax ak ni ñu ko tànn. déedéet waaw kooku yow boo demee di ko diir mbagg. wala nga nga jël say waajur ni ni day diir mbagg ay waajuram. kon moi yooyu diir nga ko bag rek. donc man ku def loolu il a dit plus grave il a dit il a dit extrêmement grave. Charlie Hebdo sur euh, sur li wax mo gën grave wa Charlie Hebdo sur le prophète effectivement li wax mo gën grave fouf li Charlie Hebdo wax. Mhm. ak li ñu def donc man pour man Moustapha Diakhaté c'est un homme dangereux te Moustapha du li bi yoon la ko commencé de man lima ma wax moy Moustapha Diakhaté dañ ko wara arrêter dañ ko wara arrêter parce que mak mu xamadi la. mag mu xamadi mais c'est la vérité Moustapha. Je moo dañ koy xamal boppam xamal ko boppam nag mooy ñu jël ko ko jox privilège de euh, euh, d' privilège carcéral privilège carcéral nañ ko yóbbu paquetage <laughs> dunduloo ko fa ay situation yu metti ba bu génni non non non Moustapha yàlla xam na gis nga fi ni li yoon mooy Moustapha pour ñu parce que mag la dañ paquetage dundu loo ko fa li nga xam ne moom ba ñuy jàpp xale yi parce que bul fàttali bi ñuy jàpp xale yi moom moo doon wax ne ñenn ñi nan leen leen bàyyi ñi ci des nan leen leen duma tëj leen ci kaso bi ñi ci des nan leen leen rey loolu Moustapha Diakhaté wax na ko fi yàggul tey sax gis naa ñuy partager vidéo kon nag ku mel noonu man pour man comme daa jàpp ni moom euh, dañoo war a sax di bunduxataal sénégalais yi te moom def na lu tax nit ñi war koo yar te mag mu yaradi ko dañ koy yar man japp naa ne buñ ko defal ben privilège carcéral. nañ ko bayyi ci chambre paquetage ya gën a saf. déedéet bu ko defé bu génnee. 10 wala 9. Ah, eh? waaw 10 euh, chambre 10. <laughs> bu ko defé bu génnee chambre 10 def fa lu mat 3 mois wala 4 mois wala 5 mois wala 6 mois. buñu paré instruction bi ñu dem atté ko bu paré door ko ben euh, euh, ben peine bu saf sap bu génnee dina tal leneen lu dul taxaw di saga yantabi sallallahu alayhi wasallam ak di saga amna am ñoo xam ne. ziare naa leen ci leugal wér ne bàyyi yéen ngi si jàmm bu baakha baakha baakha a baax a baax daam bëj Jaxate dafa boccati ko dañ ko wara yaa yar ma mag mu boccati ko moy Moustapha Jaxate wala galo réew de mu xanaa boccati ko moko raw mu boccati ko boccati ko mo raw réew de ay moo ni paranku yi yàlla na ko yàlla defal jàmm waaye di guddal famille ndax Moussa Waye taxaw tamit man moom boo ci defoo. c'est-à-dire c'est-à-dire j'ai ñëwaat na ci kàddu bi nga xam ne Moussa Waye Diakhaté yëkkati na ko fi ndege li coow li bari bari Moussa Waye Diakhaté maanaam yàlla da koo fay xolam Moussa Waye Diakhaté yàlla da koo fay xolam Moussa Waye Diakhaté dafay yëkkati woon ay kàddu jamono bi nga xam ne dañuy jàpp waa Pastef di rey di jàpp waa Pastef di dugal ci kaso bi. Moustapha Diakhaté mu bàccati ko mi. allo. Moustapha Diakhaté mu bàccati ko mi daa génnoon daal ne nañ jàpp ñun war a jàpp nañ tëj ñun war a tëj ñi si des nañ leen rey loolu nga xam ne Moustapha mu bàccati ko mi ko waxoon nag. wala ka allo. Moustapha Diakhaté mu bàccati ko mi waxoon loolu ah, bisam ñëw na moo tax ñu ñaanal ko moom it lam waxoon lañ koy wax rek nañ ray ñin war ray ñi ci ñi si des nañ leen japp tecc ci kasso bi manam gis nga mag mo xamne dafa yéene won ay ndaw ñen ñi dee ñen ñi kenn du leen gisati mag mom mo boccati ko tay motax la li naan yéene neeg la yéene neeg la borom rek mo ca mëna fana fanaan allo <laughs> yéene neeg la borom mo tay fana musa wa jaxata lu ñu waxu ko amul moom jàppoon na ne mom du mësa ñam kasso gis nga li yàlla di def yàlla nag fay na ko xolam moom Moustapha Diakhaté jàpp nañ ko fanaan nag bu dem bu njëkk fële ca Karaye te ñu ëpp ci sénégalais yi yéene nañ ko ko ndax sénégalais yi dañu ne Moustapha Diakhaté eh, dafa réew xam nga eh, Dame Mbodj moom dana Moustapha Diakhaté dafa bocc. wala kano. <laughs> dina war a yëg moom boccatu ko dina lii nag bu si jógee moom Dame Mbodj nee na bu si Moustapha Diakhaté jógee dina xoolaat li muy wax ak li muy def ndax nag li Dame Mbodj wax am na solo. Euh, gis nga Moustapha Diakhaté waruñu koo jàpp maanaam ñaari fan ñetti fan ñu bàyyi ko Moustapha dañ ko war a jàpp quinze jours wala un mois mu def ko ca paquetage ma paquetage ma ñu def ko ca moom damaa jàpp ne daal dégluwul Bougane Bougane bi nga xam ne moom mbóodi moom yi ñoo bokkoon fu ñuy fanaan bu woon Bougane dana xam bu baax a baax li muy wax ak li muy baax <laughs> Bougane Bougane bi ñu ko jàppee dugal ko ci kaso bi bi ñu ko jàppee dugal ko ci gàttal bi ñu ko bàyyee nee na moom moom moom mbóot yi ñoo bokkoon fu ne fanaan mais da ngay jàpp mbóot sànni waxi waxi waxi bugaan yi bu ko mosaa taxale déggoon dina xam bu baax li muy wax ak li muy bàyyi waaye lii la wolof naan eh, yéene néeg la borom ba cay fanaan lépp loo xam ne Moustapha Diakhaté yéene woon nañu ko patriote yi bi ñu leen di dóor ak a rey yéene jooju këpp war na ci kawam moo tax la mu doon wax rek xam nga da ne woon ñun war a rey nañ leen rey ñun war a jàpp na leen jàpp ñun war a tëj na leen tëj waaye moom Moussa Diakhaté comme moom kenn mënu koo rey kenn mënu koo euh, torturer jàpp rek dañ ko mën a dugal ci kaso bi ginnaaw waxam ju ñaaw nekkul ne dañ koy jaay doole nag waaye ginnaaw loolu nañ ko jàpp moom it dugal ci kaso bi nañ damm caabi ji ndax yéene néeg la borom képp moo ca mën a fanaan te moom Moussa Diakhaté fanaan na guddeem bu njëkk fële ca kare Euh, ginnaaw loolu dañuy déglu ci Mame Birame Wathie moom yëkkati na ay kàddu yu ama am solo ñu teewlu ci ko buñ buñ gisee nit kuy wax si Ousmane Sonko lu baax sax mere guñ mere Ousmane Sonko dañ lay mere waale yow. Mm-hmm. est-ce que amul benn traumatisme boo xam ne peut-être il faudra un psychologue pour pour voir. waaw c'est que xam nga euh, euh, erreur bi fu mu nekk à mon avis mooy dañu ñenn ñi dañoo jàpp ne bu ñu nee système mooy Macky Sall ak ñu mu àndal. waaw parce que gën naa law loolu. Mm-hmm. da leen di gis ci marab kër famille maraboutique yi. gis leen si médias yi gis leen un peu partout. ñooñu nag bu ñu demee ba nga xamante ni privilège dañ daan am ci Macky Sall parce que moom mu ñëw jox la cinquante millions par weer du dara ci moom. boo demee ba amatoo ko mais jëfur mun na la dikkal mun nga mere tout le monde. te jàpp naa ne loolu moo ciy xew. moo jàpp en tout cas depuis élection yi ba léegi. élection yi passé ba léegi mais mais yow xam nga ne yow nga ko posé <laughs> xam na am solo nag moom Moustapha xam léegi réew mi da ngay toog daan ne Ousmane Sonko li mu am yàlla la li mu am yàlla moo ko ko defal am benn waay boo xam ne mi ngi toog di la déglu mere la maanaam réew mi ci bari ñoo xam ne seen xol yi dafa bona bona bon classe Moustapha Diakhaté gi ci lañ bokk ak ñeneen ñi nga xam ne dañoo nëbbatu ñooñu moom képp koo xam ne yaa ngi toog di waxal Ousmane Sonko ay li mu la li mu am ni kenn mus ci réew mi ci ñoom dañ lay mere te yow pourtant da ngay wax li nga xam ne moom nga gis ak li nga xam ne ni moom la sénégalais yi gis mais yow dañ lay mere ci li nga xam ne wax nga ko rek ci président Ousmane Sonko mais ñooñu moom ci xol bu bon la ñuy dëkk ci ak dee ñooñu fi ñuy mujj mooy fi Moustapha Diakhaté mujj rek toog di saaga sénégalais wala nga toog di wax wax yoo xam ne nii da lay jural dem ak kaso loolu maam Birame Waly wax ak li nga xam ne Moustapha Diop wax na ko moom loolu képp lay indi fii ak yaa ngi toog ñu tudd président Ousmane Sonko nga ci am xol bu jeex wala nga ciy amoo naqar wala nit ne président Ousmane Sonko li mu am yàlla nga mere ko ca. yow ci sa bopp chaque fay mooy ci mer gi ngay mer li chaque fay mooy da ngay dem kaso tëdd noppal sa yaram ndax loolu rek moo leen dese jamono ji ndax lépp loo xam ne lu bon la ñu àndoon ak Macky saal def nañ ko ci réew mi ñi si des nag dem tëdd kaso rek moo leen dese ndax lépp loo xam ne wax du ñaawal ñu ngi koy wax lépp loo xam ne mën na leen a dugal kaso ci la ñuy dox suba ngoon Moussa Faye Diakhaté yàgg na di wax kenn faale waaye gis ngeen ni bis daa ñëw mu laal laalaat. bis daa ñëw Moussa Waye Diakhaté boccati ko. moo ne paranku yi. mi ngi noonu ñu déglu Pape Makhtar Diallo moom nag yëkkati na ay kàddu yu ama am solo yoo xam ne jar naa bàyyi xel ndax réew mi dafa am ñoo xam ne dañu ne woon ay journaliste lañ fekk na dañoo sànko daan bind daan wax te li ñu daan wax ak li ñu daan bind yëpp ci li nga xam ne moom la ñu ko tegoon muy ak far koo xam ne faroon na ba ñëpp fasaloon ko ni ñii dañoo faral ñooñ nag dañoo lànkoon na ñoom fëriñu dañoo tëddee ñaaxaanaay mais léegi ñoom ci seen bopp muri nañ leen ci mbalaan yi ñu woon war leen Sénégalais yi ne leen ñii dañoo far. gis nga ci convention yi xam nga yàgg nañ koy wax ni euh, ñu bëri ñuy wax convention yi lu tax di wax. Mhm. Euh, gis nga ba PM arrêté convention yëpp. lii amatul benn convention bi kon continuer di wéy même bu nekkee sax dañ la jot a parti bi benn parti moom jàpp ni doo dootoo si jot. Mhm. moo tax ba ñu bëri tey ci presse bi di xatraayu di rey seen bopp parce que convention yooyu ni ñu ko doon joxee ñëpp dara jaar ci mais xatraayu du solution parce que waa jiite gouvernement boo xatraayu aussi moom dégluwu la al amin Mbàkke surtout Cheikh Sidi Muxtaar Mbàkke radiyallahu taala borom fas fas nga xam ne ci ngóoram rek lay dox sëriñ bi fas nga ñu lakk dëkk waaw moom ñëpp xam nañ liy mbiram kenn nattab léewtu ko képp koo xam ne da ngaa nekk mag mbaa ndaw am jafe-jafe néew kattan moo xam sa awara di nooy di lax ngay gaaw a yegg wala nga nekk nit koo xam ne santiroota sa bopp dara ci ngóor a jëlal fas gi fas la koo xam ne ci sama maam la jógee mu doon dond billaahi wallaahi wal kitaabi at yoo mën a am boo ko taqee taquk néew kattan loolu Sénégal gépp xam nañ ko ak adduna bépp xam nañ ko te njariñ dañ koy baaxee moo tax buur ñu ñëw indil sénégalais njëriñ yi ñu jàkkaarloo mooy fas yi nga xam ne ci néew kàttan képp lay dox. du looy naan du looy diwoo na leer ndax fi jamono toll naan ak diw dala wóor ci al amin Mbacke surtout Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke radiyallahu taala anhu kon na gaañ fas gàngoog dawal wuti ko ci nu mu gën a gaaw. te eh, ñoom jàppoon nañu. te askan wi moom la pression <laughs> xam nga ñenn ñi euh, dañ doon jàpp ni que. Euh,

te pourtant mosoo leen mosoo leen wax wax joo xamante ne wax ju ëpp la. non mosuñu ko xeexee mais xoolal tey Cheikh Yérim Seck di di di di Madiambal Diagne lan leen nit ñi doon wax que da ngeen far. Mhm. ñoom ñoo ko prouvé Sénégalais yi. kenn ki dem ci benn liste kenn ki créé mouvement. di jàppale mhm. kenn. Mhm. c'est-à-dire li Sénégalais yi doon wax ñoom ñu koy wedd di naan ay journalistes nañu. Sénégal yi ñu ngeen génn ngeen ci journaliste bi yàgg na. dama ko dama bëgguma ci war kii sax mais moo moo grand frère la Cheikh Yérim parce que daam xam na ne ñoo bokk fa ñu dëkk dama ko dégg bërki démb ci may euh, Maymouna Ndour Faye mu ne Ousmane Sonko du du dem ci entretien lu dul ci média de propagande. ah. ak ay journaliste waaye ak ay journaliste booy bi mu defee entretien bi ak Walf la ma déglu ko jàng ma reetaan quoi ba ne sincèrement am na yoo xam ne. ñoo ko jarul toog. li ma ci li ma ci naqar rek daam mooy lépp kenn mënu ko wax ci kan moo nekkoon ci propagande. kan moo nekkoon moo doon def lenn parce que dafa amoon lu mu ci doon séntu. te sénégalais xam nañu sénégalais yi gis nañu carrément fan la dëgg féete maintenant ñooñu seen avantage yooyu li daam wax la seen avantage yi ñu doon tàmm di am toog muy dox. toog muy dox boobu nag bu jeexee mais di nga daw di nga tëb nga kii pour jéem ko lijjanti. dégg ngeen kàddu yi nga xam ne moom Pape Makhtar yëkkati na ko mu jëm ci Cheikh Yérim Seck ak kii di Madiambal Diagne moom Cheikh Yérim Seck ak ma Diagne nag sénégalais yi xamoon nañ leen ne ñii dañoo far ñoom nag dañoo muuru woon dañoo saang woon ndax dañu doon wax naan ñoom ay journaliste la rawatina kii di Madiambal Diagne moom da doon wax naan journaliste la day tëddee ñaaxaan naa mais gis ngeen ne moom ci boppam muri na boppam wane boppam ne moom ak politicien la ndax ci élection yi nga xam ne moom lañ génn nii muy le 17 bii passé moom. ma Madiambal Diagne dafa bokkoon ci ab liste di jàppale kii di Amadou Ba fësaloon boppam léegi nag moom ginnaaw dane woon day bàyyi wàllum journaliste dem nekk politicien ndax ma Madiambal Diagne day wéy di doon politicien wala Madiambal Diagne day delluwaat ci jaxase gi nga xam ne moom la nekkoon ci wàllum journaliste loolu ba tey ab laaj la ndax kii di ma Madiambal Diagne gisoon ngeen ne moom ci boppam xamoon na ne nekkul journaliste moom ab jaxasekat la woon ndax kàddu yi nga xam ne mi ngi ko daan yi euh, yëkkati ak li nga xam ne daana ko bind lépp ay jaxase la yoo xam ne dafa fës sénégalais yi fësoon na ci ñoom ne ñii ay jaxasekat lañu ak ki nga xam ne moo di Cheikh Yérim Seck Yérim ci ay kàddu yi nga xam ne ne mi ngi koy askan bi ñu ci bari dañoo demoon ba classé ko ni kii day fen ndax Yérim day wax li tey suba Yérim wax lee kàddu yi nga xam ne moom lay wax ci président Ousmane Sonko bu ëllëgee bu ñëwaatee kàddu yi nga xam ne moom lay waxaat du bokk ak ya mu waxoon ndax déggoon ngeen fi mu ne Pastef du ñu am candidat ci waxi euh, yiri yi nga xam ne daana ko wax sax jurta dellu si waat ndax moom doon wax naan Pastef bi ñu am candidat Pastef am nañ candidat gagné nañ élection kon yiri moom dafa nekkoon nit koo xam ne dafa pare woon pour jaxase ma jembal moom ak bigam la yoroon ak kàddoom koo xam ne jàpp na ne heure bu waxee sénégalais yi déglu ko fekk sénégalais yi bàyyi nañ ko yiri gis ngeen sopp yi nga xam ne mujjee na koo def mi ngi génn di wax ba pare génn di attaque premier ministre bi te ñoom dañu doon ay journaliste lañ ay nit lañ nag ñoo xam ne dañoo sàng woon waaye léegi muri nañ leen wala leen sénégalais ni leen ñii ay saytaane lañ te loolu nag moo fës moom Madiambal Diagne dane woon day bàyyi wàllum journaliste daal di nekk ab politicien dem na ci ay élection ñu gañe ko nag nekkul député ndax Madiambal Diagne day continuer journaliste wala déet day continuer doon journaliste wala day continuer doon politicien kii nga xam ne moo di Yérim moom déggoon ngeen ko taxawul woon na woo ay booyam ne day defar benn mouvement gis ngeen fa mouvement bu mujj yàlla nag dafa mën a àtte ndax mbirum yàlla du mbirum nit président Ousmane Sonko ministre suñu fan